xibaar yi yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm di rafetlu seen ak rajo Futur Media benn waxtu jot nañu jukki leen xibaar yi Barthélémy Ngom li ci gën a fës mbirum Cheikh ñas tey la njaboot gi di jot euh, néew beek résultat yi tukkee ci autopsie bi euh, ci lañu koy jébbal sunu borom euh, fële ca Cambérène Tog nañu lu ëpp ñaar fukki weer yo nga xamantene ne feyeekuwuñu seen salaire kat yu Medis Sénégal jamono ji dañoo sëngéem di xaar seen société bi wat liggéey njitu réew mi na ay yu ci jëm ba Francis mi kër gi nga xamantene ñom mom lañu denk ñu bi ne dal ñu ngi ci mu politique élection locale yi ñu jëm xeex bi bo moytuwul dana tar ci Bamba Fall ndax dana mën a wat commune bi laaj candidat yotogom Toga tooga bari nañu reportage ci Kibari, xibar yi ci commune bu coalition bi faré ci eh, nguur gi mo fay tass liko waral investiture yi jëm ci élection locale yi ñu deugmal eh, dañu ci andak Lamine Ba biti rew Georges ci job lañ ci andal tàggat yaram Cheikh Tidiane eh, Mohamed Ndiaye gis-gis ak RFM lañuy ñuy jéxalé France Afrique sommet bi la tambali amul chef d'état africain buñ ah, ndawi Afrique ñu ci ëpp ci société civile bi la Emmanuel Macron di dajeel eh, fem wu bees la la ñuy waxtaanee ci njeexitalu xibaar lay doon ci gis-gis lay doon. Aliou Ba moo ci machine yi yi nuyu nañ leen euh, Média. njabootu Cheikh ñas ñu nga ca jamono ji ca hôpital Dantec di xaar ñu jox leen eh, néewam néewu Cheikh ñas mi nga xamante ni dafa ñàkk bakkanam fekk mu nekkoon na ci loxol yoon daal ñu leen jox néew bi jox leen it résultat yi tukkee ci autopsie bi ca lañ koy eh, dogga a jébbal sunu borom ca sëkk ya nekk ca Cambérène waaye njaboot gi ne ñu daal ba tey eh, fa ñu taxaw daal jógewuñu fa mu di xeex bi dina wéy faw ñu xam dëggantaan lan moo faat Cheikh ñas ci biir kaso gi mu ne woon

Euh, ouverture usine Médis bi nous euh, ñu ngi prévoir début octobre donc ex directeur industriel Abdou Aziz Cissé annoncé que nous avons sax ci journal Le Soleil mais ba tey nii amul avancement donc ci lu ñu wax ils ont des papiers à finaliser ak FONSIS donc nous ñun fait un peu def temps, mais ba tey ça bloque rythme bu mu demee yaakaar nañ ne ba fii ba fin d'année bi sax bu continuer nii moom usine bi du ubbi donc aujourd'hui euh, tey population bi may euh, personnel bi dañ sonn parce que toog nañ vingt et un mois sans salaire instant bi ni on est ñi léegi ñu yegg si si ouverture des classes on est à moins de une semaine ouverture des classes donc euh, personnel bi yaakaaroon nañ ne début octobre nañ ubbi tey en fait vision même direction médicale amuñu vision bu leer si date ouverture exacte bi donc personnel bi samit en fait jàngat bi am lek que ce soit état du Sénégal wala surtout euh, direction médicale

sooy defaraat day fekk li ngay defaraat am na lu ci yàqu am na lu ci nekk donc commencer moo gën a yomb. Hmm. moo tax mbir mi mënul euh, ñi liggéey ci ci ci li ñu wooyee relance xam nañ ko. am na waxtaan bu ñoo xam ne commencé woon nañu ko ak négociation ak Médis Tunisie léegi daal foo naa ñaar wala ñetti point moo ci des. ñaar ak ñetti point yoo xam ni ñi ngi xaar Médis Tunisie tontuñu. te suñ si d' accordé dès lundi mbir mi mën nañ commencé. mooy travail administratif bi pour que PONSIS dugg ci capital bi. kon daal mën nañu euh, jàpp ne euh, liggéeykat yi euh, mën nañu yaakaar ci octobre bi ñu nekk. octobre su ma ko waxee dina xaw a teel parce que suñu d'accordee ba war a dugg ci capitalu entreprise maanaam dafa am ay benn loi bu ñu woowee OHADA. mu tënk entreprise yi ni ñu war a ni ñu war a defee su nit war a dugg sa capital yow su sa bopp ministre ministre Sénégal war na am ay réunion yu muy def mooy conseil d'administration assemblée générale pour que actionnaire yi mu d'accord ensuite ñu dem ci notaire ñu signer ay papiers donc loolu am na benn durée bu muy jël moo tax durée boobu suñ ko paree boobu la xaalis bi lañ koy mën a def ci biir moo tax suñ d'accordé mën nañu wax ni que daal euh, fii ak euh, fin d'année bi xaalis bi mën na yegg si Médis ba waa Médis commencé seen liggéey. mais octobre moom. day jàmp waaw day jàmp ñetti semaine moo ci des am na ay jours fériés voilà te xam nga réunion yooyu. Mhm. mënul ñàkk parce que entreprise gouvernance bi mooy li gën a important. Mhm. mooy topp yoon bi topp ni ñu ko war a defee ba en fait ñu augmenter chance li ñu bëgg a def am. kaddu yi Pape Demba Diallo di directeur général bu euh, Francis di kër gi nga xamante ni ñoom la ñu dénk liggéey gi ngir MEDIS mu tàmbaliwaat ay activités ci fàttali nag benn fan ci weeru septembre ci atum 2021 gi ci ndajeb conseil des ministres la jiitu réew mi yëkkati woon ay kaddu euh, ne daal urgence la ci jamono ji ngir MEDIS Sénégal tàmbaliwaat ay activités am juróom-ñaari simili moo topp moo bootu ci benn waxtu.

Eh, ne ñu eh, dana indi ay gàllankoor ci seen i activité dégg ngeen fi tailleur yi dégg fi ñi nga xamante ni yaay tissu dégg ngeen fi sax di dawalkat yi jakarta yi ne mbir mi dana len impacté bu baax a baax mom, nag butas, ca marché bu tas ba nekk ca Tiwaawoon eh, ñoom itam commerçant yi ne mbir mi dana leen laal lool ndaxte ci bëri ci ñoom dañ doon sukkandiku ci gi ngir mën a def seen i activité na mu yenn sax da nga doon indi ay conteneurs soble jaay ko ci gàmmu gi ngir ñu jaay seen soble ga ñu yor rek problème la ma ñu ne déception la ñu amee ci mbir mi am ñu ne ndegam kàddu gi la wala boog dogal la bu tukkee ci xalif bi lu ñu mën lu dul daal di sàmmoonteeg moom maam astukan ñoo ngi fii ci marché bu mag bi ci Tiwaawan ñu koy wax marché bu tas fi mu toll tembe nii nag marché bi taxu ko xumb lool ñàkk amal gàmmu gi mu doon lu neexul jaaykat yu bari ku ci mel ni moo Modou am doon grossiste moom mi di wax ni su gàmmu musaana jot day jënd marchandise bu bari daal di koy stocké yaakaar jaay ko. day xaw métti trop si ñun commande bi nga daan def daan jaay rek nga daan jaay quoi du dox 100 pour cent da nga daan wàcce par exemple conteneur soble bu dul gàmm 100 sang ngay jënd te daanaka du jeex te Tivaouane tamit benn événement la am muy gàmm amul leneen amul marché hebdomadaire amul marché dara waaw waaw vraiment daal économie moom beese wu na jaaykat bu nekk na nga gisee ñàkk amal gàmm gi ñenn ñi dérangé wu leen ba impactu gàmm gi ngeen wax ci wàllu commerce bi lu xalifa bi dogal bu ma fekkoon fii nii ma tëjal ma tëj nga xam ne yokku laa ci jële mais du ma jële wàññi kenn du maye bopp ci lamiñ njaayam bañ a gàmm moo ma gën a gaaw buñ ma jaay ndànk-ndànk ànd ak sama xel mu dal tey ku gàmmuwul dafa bëri coow sa liggéey doo ko mën a contrôler du jaar yoon ñu fekk ko mu tim comptoiram nekk di waxtaan ak ak ay moroomu butikiyoom moom Moussa di wax ni ñàkk amal gàmmu gi wàññiwul dara ci njaayam gàmmu gi amul ci xaalis de da nga fi lebal fi mu bagaat mu daw mbaa nit jël fi sa bagage tem mënu koo jaam indiwaat gàmm ñëwee dama naan dama tëj sama bi bu gàmm ak jàll ndax da nga jël bagage jàmm fi teg ko nit ñu jël ko duñ la fay am ñoo xam ne si sax bu gàmmoo jàllee seen bi sax xaw doon koy foofu tëj ñàkk amal gàmmu gi indi na gàllankoor ci secteur informel bi yëpp fii ci Tivaouane ñi ci bari ci acteur yi doon waajal événement religieux bi doon wut ay fonds ngir investir ndax ñu mën cee am lu kawe seen njort maam astukan fii ci Tiwaawan rajo Futur Média. reportage yu maam Astou Kane ci marché bu tas ba nekk ca Tiwaawan beneen marché di marché Ndoumbé Diop ba nekk ca Diourbel foofu nag li ñu fa nemmeeku mooy yenn njëg yi dafa yokk euh, yeneen produits yi sax dafa dem ba amatul foofule la ko waral bokk na ci nawet bi reportage Alimatou Sarr. marché Ndoumbé Diop ci Diourbel moo ngi fees dell ak i ndugu jigéen ñi di wëyal seenub jënd. waaye jamonoy nawet gi ñu seetlu rekk ni amal ab togg gu mucc ayib jigéen ñi dañu ciy sonn lool yenn ci ndugg yi njëg la dafa kawe lool ya ca des moom doo leen sax te gu gët. des fois da ngay wut ceeb doo ko gis dawlin bi noonu. nawet waa ndugg du am jën tamit day cher. carotte yeeg yooyu dafa cher benn rekk fa weer. gis fan yee amoon na waaye tey jii mu ngi nii di jar 1000 francs 1500 mbir nag yenn ci grossiste yi daal koy yokk. yokku ñu ci ëpp ci ñoom daanaka doxaluñu benn yoon wàññi jëm ci ndugg yi ki ñu koy xamal di Aminata. bitig yi waaw ñu ngi de bi mu ngi jar loolu ba léegi ceeb bi mu ngi jar 400 diwlin bi am ñoo xamante ne ba léegi 400 la ñuy jëndee ñii di 325 ngir wàññeeku bi moom gisaguñ ko ci dund bi metti na de. Maam Diarra saara di ab grossiste moom nag mu ngi ñaawlu ñenn naataangoom yi ni ñuy doxalee. dama amoon ceeb avant yokk bi bi ma ñëwee dama xamal sama doom ne ko bul yokk liñ daan jaay nañ koy jaay ba ba ñuy jëndul cher diwlin bi demoon ba daan na jar vingt cinq mille ñu daan jaay mille quatre cent waaye bi mu wàññeekoo it ñu ngi jaay mille deux cent am na loo xamante ne du affaire lislaam dégg ñu ne yokku na rek sa bagage yokk bagage boobu jëndee te yokkuwul bul yokk nawet ànd ak coono ci jigéen ñi ñoom nag ñi ngi def lépp lu ñu mën ngir rek mën a togg ceebu jën bu jaar yoon Alimatu Sarr Diourbel rajo Futur ci marché Ndoumbe Diop bu Diourbel marché yi xamoon nga xam ngeen que ci jamonoy mbas mi dañu leen tëjoon loolu nag indi woon na ay gàllankoor yu bari ba fi sax ñu nyom koy soxalé ñom ñi yëngu ci walum agropastoral maanaam mi euh, sàmm kay euh, béy ñoom nag ñu ne demoon nañu ba gisunu ku nu jaay loolaa tax euh, jamono ji lu nekk lañuy ndaw yi botu ci conseil national ci concertation coopération riro ñoko ko xamle ci ndaje bu ñu doon amal ci kaawlak ñu fekki fa Pape ndaw ñi nga nekk ci conseil national de concertation et de coopération CNCR ñom nak Covid 19 bi laal na leen bu baax buñ sukkandikoo ci ndaw ñooñu nga xamante ñu ci bari dañuy yëngutu ci walum bay jangoro coronavirus bëri si perte yu bëri moom la leen indil Alioune Badara Diong moo nekk président collège des jeunes du CNCR. Covid 19 bi comme ni ko ñëpp xamee ci àdduna bi dafa ñëw metti mais fu nekk ñu fay tëj ay frontières. mais ci biir réew mi ñu ne benn instant dañ ne déplacement yi nañ ko wàññi. ñu dem ba mu yàgg ñu ne nañu tëj yenn raison yi ñu dem ba mu yàgg ñu ne nañ tëj raison yëpp ba mu yàgg ñu ne nañ tëj marché hebdomadaire yi ndaw ñi am na ñoo xam ne dañuy dëkk ndakaaru seen ay tool nekk Thiès duñ fa mën a dem marché hebdomadaire yi mooy yi nga xamante ni yi gën a mag dañ fa doon dajali di jaay lu takku di fa jële koom ak ñàkkum engrais bi nga xamante ni béykat yi dañ koy jànkonteel collège national des jeune du CNCR di woo nguuru Sénégal mu gën a investir ci engrais bio bi Alioune Badara Diong. wàllum ñak engrais bi lu am la waye lolu li ci ëpp doole moy dañ né engrais chimique la mom la ñuy wax ay 10 10 20 ay 15 15 wala ay urée 46 wala 6 23 30 yu mel nonu dafa ñak lool ci réew mi. ñi wax né depuis at yi ñu wess ñom dañuy ñuy jëm ci li ñuy wax bio moy mbéy mu sel baax ta am njariñ ci wërgu yaramu askan bi ñu né ñun béykat yi kat bu engrais ñàkkee yi togu ñu croiser le bras ñu ngi jëm di jëmale suñu activité fofu lañu ñak ñu jëm ko wuté ci li nga xam ni moo nekk suñu gox-goxaan yi. ndaw ñooñu nga xamante ni danoo nekk ci conseil national de concertation et de coopération des ruraux CNCR ñoom dañ doon présenté seen bilan activité yi nga xamante nii amaloon nañ ko bilan boobu nag ndaw ñi bokk ci collège bi yëpp ñoo ko rafetlu RFM Kaolack Pape Mbaye Diaw. Pape Mbaye Diaw préfet bu Guédiawaye ak collectif bi ëmb maraîchers yeeg éleveurs ñu nekk ci littoralu diwaan ba si subaak léegi ñu ngi doon amal ndaje ngir xool. Euh, nan la ñuy amee saafara ci li leen wutali mu di litige foncier ndax dañu leen bëgg a jëlee foofu li ca littoral ba euh, ndaje ma nag jeex na amagul benn dogal buñ ci euh, buñ ci jëlagum donte sax collectif ba ñaa ngay daja dajaloo fi mu ne nii ba xam daal nan la ñuy wéyalee seen xeex ba. ñu dem ca Diofior commune la boo nga xamante ni daañu fa defar ñaari forage. Euh, liggéey ga tàmbali nañu ko benn ONG bu nga xamante ni mu ngi tudd Sud Africa moom leen ci dimbale xaatim ma partenariat digganteem ak commune ba Euh, loolee nag euh, dina andi ay saafara ci jafe-jafe ndox mi ñuy nemmeek foofu la ca Diofior ñu fekki Aminata Goudiaby daanaka lu ëpp juróomi at mi ngi nii commune bu Diofior nag ñàkkum ndox di ko sonal lu bëri ña fa dëkkee nag xam ne dañ cee sonn loolu bu nag bu yàggul dara seenu coono dana leen wàcc ndaxte ñaari forage ña nga fay waaj a tabax te nee ñu lu tollook fanweeri junniy nit mën nañ koo jëriñoo Youssou jom moom mooy maire bu Diofior ndox mi ndox mu seet lay doon ay experts suisse muy ONG suisse bi ñoo xam ne dañoo xarañ lool

jëfandikoo bu baax a baax te saa yu ñu soxlaa ndox mu set rek dina disponible. ONG bi ñuy woowee Sud Africa moom nag moom moo xaatim ab partenariat ak commune bu Diofior li ñu fas yéenee def ci partenariat bu ni mel bokk na ci itam tabax fa ay centrales solaires yoo xam ni dana tax ba ni ñuy joxe électricité foofee ci commune bu Diofior gën a ñoŋ. Ces centrales aussi vont alimenter tout Diofior. Le problème vraiment de Diofior c'est surtout le problème de l'électricité parce que l'électricité a été implantée en 96 pour une population 3 3000 habitants, soit 250 euh, KVA au total. Actuellement, Diofior, fait presque 20 000 habitants, ce qui fait que euh, le courant ne suffit pas. tabaxuk jumtuwaay wayo yunak Ligébi, bi lancé nañu ko te nee fasine liñ ci fas yéene def ci xaalis ëpp na Aminata RFM. Aminata Goudjabi, lu Basmi, mbas am nañu juróom-benn kaayu bees euh, ci ñaari ci Euh, am na koo xamante ni ñàkk na bakkanam ci euh, feebar bi ni kii démb juróom-benni cas ñoo nekk ci Sowétas ci jamono ji. ak RFM kumpa jeex na. ñu wax ci wàllum euh, politique élection locale yi ñu jëm xeex bi boo moytuwul dana tar fii ci Medina Bamba Fall ndax dana mën a gañewaat commune bi lii mooy laaj bi li ci am mooy candidat yu bari daal ñoom ñooy yoot toogoom moom Bamba Fall reportage Mamadou Omar Ba. Mamadou du ñu ngi ko fekk mu toog ci ban teg saagado ci wet gi muy suivre lool actualité politique ci commune am moom mu ne Bamba Fall lay tànn bu nekkee candidat. da ko bu njëkk ñu ma fa jaar cinq heures Bamba Fall ñi fa nekkoon ñëpp nekk ay bandi ñëpp lu jël di leen liggéeyaloo te mën naa la ay nit waaye ko waxul journal ñu ma citer ay nit kon kooku bu la dig añ bu la diggee reer gawmu ko. Modou moom ouvrier la moom mu ne dafa mer lool ci anam mi ñu yore mairie bi mu ne tànneefam ci mouvance président. présidentielle lay jógee waaye fii ñaari candidat ñoo fi nekk. CATD ku muy liggéeyal tuddoo Seydou Gueye. du APR benn candidat lañu Seydou Gueye ak Cheikh Ba. ak même waa Médina coalition les jeunes de la Médina ñoom ñëpp benn candidat lañu am. amna na ñu ne am na candidat boo xam aujourd'hui dinañ ko génne mais man de waxuñu ma ko xaw ko man daal kuy xas waa Médina di leen saaga ne ay gu bande lañ man duma la voter te ku ma xam du la votel naa influencé nit ñu wax ak ñoom ba ba duñ la voter ci góor jigéen amu fi bandi amu fi. laay ñi ngi ko fekk mu toog ci rue 13 yore journalam moom mu ne bu élection yi jotee dina dem voté ji waaye tey ji ba tey féetewul fenn. Médina 100 pour cent laa dëkk de mère grand père fépp daal dinaa voté ji c'est un devoir citoyen on ma hein, mais <laughs> Moi, avec les politiciens, là, ça va, merci, quoi. Dama nous Fenn, et nous amènent avec violence, nangam, sangam, ak dugunu fi, genn fi, donc voilà, quoi. Alliance pour la République, l'ata élection yi mu am coow lu beno ndaxte Benno Bokk ñaari candidature la am Seydou Gueye ak Cheikh Ahmed Tidiane Ba. Mamadou Omar Ba ñuy jéggalu ci kaddu gu ëpp googule ca commune bu mu lomp nekk ca Casamance coalition bi fare ci nguur gi ma nga fay tas euh, waral nak, di investiture yi ñeel élection locale yi ñu jëm Lamine Ba. diggante gi mujj na tas diggante APR ak ñi nga xam ne ñoo la ñu àndal ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar ci commune bu Moulom investiture yi waral li ni mel waa coalition Benno Bokk Yaakaar kii di Pape Ansoumana Diémé la ñu tànn ngir mu jiite liste yi ci élection locale ñu dëgmal waaye kii di Sidi Eñab Samb di maire bi bañ loolee bu baax a baax nee na nag du nañu seeni PV ñu fañ koy war a ñun yëguñu jox nañ ko responsable yi ca kaw responsable yi yor nañu PV yi ñoo ko denc bépp commune maire ba fa ne lan lay firnde la muy firnde mooy maire booba moom moo yor majorité bi ca commune bi ndax looloo ko taxafal bu ñu ko defee yaakaar ne ñun dinañu gedd dañuy nax seen bopp ñi nga xam ne ànd nañu ak kii di Pape Ansoumana Diémé mi ñu tàbb ngir mu nekk candidat coalition Benno Bokk Yaakaar bu commune bu mu lomp tontu nañ kii di maire bi jàpp na ni nag kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko dara du ci dëgg accusation yëpp yu mu def ci mooy coordinateur départemental lépp lu mu wax ci moom waxul dëgg ndax ay tuuma kese la ko nena momo majoritaire fi ci commune moulam te day jël mahamal len ni élection yu amone 2014 mais lu mu am ci voix mënuñu ko tudd majorité te encore lu mu doon wax lépp tegu ko ci dëgg li ko weesu nee nañu Sidi Eñab Samb li muy nëbb mooy bilan bu bon bi nga xam ne am na ko ci bopp mairie bu mu lomp lu mu bañ a wax nit ñi mooy bu mu nekkee ci kaw commune bi depuis pratiquement 2009 gisuñu lu mu def lu jëmee commune bi ci kanam li nga xam ne moo di investiture yi ku moytul nag mu juri musiba ci biir coalition benn bokk yaakaar fa nga xam ne moo di département bu Bignona ndaxte li weesu ñàkk déggoo bi nga xam ne moom la ñuy doxal biir élection présidentielle ñu génn laaj yu méttee lañu jëlé ci élection yoyé ci kanam parti bu Ousmane Sonko Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Media RFM bitim réew. Georges Dethie Diop ñu ngi lay nuyu. ma ngi lay fay Barthélémy. prix Nobel de la paix euh danaka liberté de la presse mom lañu récompenser ci atum ren ji. noonu lay la demee ndax tay si euh, ajuma gi lañ ko joxé jox ko ñaari taskatu xibaar philippine bi di Maria Ressa ak doomu russe di Dimitri Muratov prix Nobel bi nak euh, ñu ngi leen ko jox ndax euh, jéego yi nga xamante ne ñu ngi koy dox ci wàllu liberté d'expression ci seeni dëkk ya jury bi ne Dimitri Muratov bokk ci ñi taxawal benn yéenekaay ak euh, nekk ca rédacteur en chef manam Novaya Gazeta ay at ni mu ngi def lépp euh, ba liberté d'expression am ci euh, réew que nga xamante ne ñu ngi dund ak que jafe-jafe di Maria Ressa nag ak média d'investigation bi di Rappler yi ñu créé en 2012 moom liberté d'expression lay utiliser ngir xeex lépp lu jëm ci euh, autoritarisme bi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku ci dëkkam di Philippines. ñu dem ca Nigeria am na ay otages yu ñu fa libéré. noonee la demee ñi yor kaaraange gi ñoo libéré yooyee otage téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari euh, nit la euh, ci ay raid yi nga xamante nag ñu ngi ko amaloon ci ay camp yi camp yi euh, ay nit ñu yor ay nganaay yor ci nord-ouest dëkk ba ñooñee nag ñu wàllu woon ñu ngi leen bàyyee ca état bu Zamfara foofee nga xamante ne dañ leen enlevé woon ci ay attaque yeñ fa nemmeeku woon ca Mali taskatu xibaar bii di Olivier Dubois def na juróom benn weer ci loxo ñi nga xamante ne ñoo ko yóbbaale enlevé ko 8 avril la woon euh, ca Gao jamono ji nga xamante ne mu ngi doon def ab reportage boobu ba léegi nag euh, benn yoon kot lañ ko gis ci ab vidéo bu gàtt muy naan groupe de soutien à l'islam et aux musulmans ñoko ko a ajuma gi nak ay banderole ñu def ca photom nañ door diko taf ci euh, mairie fofu ci France euh, lolé nak wa RSF Reporters sans frontières ñoko ko def gannaaw Paris nak euh, Marseille lañu dem Lyon Bordeaux Nice Rennes wala bok Bayeux fi nga xamantene ci ay bus bi ñu nek ni lañuy joxé prix correspondant de guerre yi dem ba ca Centrafrique nit ñangi addu ba légui gannaaw cong nga xamantene won nañ ko ci bambar yi ba ñu bari ñak ci seeni i bakkan assemblée nationale moo ñaawlu Nafissatou Sylla bilan bu mujj bi nag nit ak juróom yu faatu la xeyma tax nak réaction yi di jib ba ni si mu soxal nak attaque bi amoon fofé ci Bambari centre afrique noné ci communiqué président bu assemblée nationale bi nak daal di ñaawlu attaque bobé Simplice Mathieu sarandi di wax ni député yi ñu ngi ñaawlu bu baax li nga tek nañ ko ci ay nit yo ay civil lañu yoré seeni droit ngir dem ak dik ci Afrique Batay ci communiqué bi député yi nga xamantene ñoo fi askanu Centrafrique daal di tepp waxat ni gouvernement bi ci bopam dafa wara jël bép disposition bi war ngir jamm amaat ci réew mi waye nak loolee mu da ci sóob bu baax loxo yi nga xamantene ñom yor réew mi waye tamit ak wa MINUSCA ñom yi nga xamantene mission moye, dal di sam askan wi fofé ci Centre Centrafrique wo itamit yenen force force yi loole yépp nak ngir bëgg rek ñu di garantir dem ak bi ci nit ñëpp ci réew lépp ci ki fi ministre ak président mouvement bi du mouvement pour la libération du peuple centrafricain di Martin Zingele mom li mu bëgg mooy ñu daal di def cessez-le-feu maanaam ñëpp daal di teg ngànnaay yi. yokk ci itam ab cong am na ca Ngakobo ci préfecture Ouaka bilan bu njëkk bi ñu ne ñetti nit ñoo ca ñàkk seen bakkan. sommet bu Afrique France ndaje ma ubbi nañ ko tey ci suba ca Montpellier. lu jege ñetti junniy doomu Afrique jóge ci continent bi wala ñu jóge ci diaspora bi foofee ñu ngi fekkee ndaje moome Emmanuel Macron di njiitu France teewe ko ba amul beneen njiitu réewu Afrique nag ba ba ne Emmanuel Macron tay ci euh, suba mu xam le France dana wat njeexital weeru octobre wa à lu toll ci euh, juróom benni euh, ñaar fukki œuvre ak juróom ben ya nga xamantene ne ñu leen jëlee ci palais bu Abomey ci njeexitalu 19e siècle comme nim ko engagé won ne dana leen ko fin octobre dana leen ko delloo. jërëjëf Georges Dethie Diop. Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi lay nuyu. fay Barthélemy Ngom. tàggat yaram ñu njëkk a wax ci qualification yi ñeel mondial 2022 euh, football la. Euh, sunu gaynde yi daanaka noppi nañu ngir euh, jonganteeg waa bi yëf ya ëllëg la ñu koy daal di amal ci bu 19h jotee ci stade Lat Dior bu Thiès waaye tey jii euh, ñaari équipe yi dinañ amal seen séance d'entraînement gu mujj laat ñuy soobu ci gile jongante ëllëg Sénégal nag daanaka ñëpp ñi nga xamante ni Aliou Cissé da leen convoqué woon ñoom ñëpp ñu ngi fi ba mu des ki nga xamante ni moo di Boulaye Dia moom nag dafa daal di ñëw ba pare delluwaat ndax gaañu gaañu bi nga xamante ni moom la moo ko dal jamono gi euh, dañ siy dal di déglu docteur Abdourahmane Fédior moom mi nga xamante moo yore wér-gu-yaram équipe nationale bu football bu Sénégal. amoon ay tolof tolof. Boulaye Dia moo amoon problème ci óomam dafa gaañu woon ci óomam ci club am semaine bi passé ñu bi mu ñëwee ñu xool ko xam ne daal kii du mën a participer ci prochain match bi telle sorte que démb dañ ko bàyyi mu ñibbi ah, pour continuer fajoom fajoom bi mu doon def fii continuer ko ci club am euh, ñaareelu joueur bi xawoon am ay gaañu gaañu moo doon euh, seeni Dieng benn góol bi mm, dafa gaañu woon ci matcham bi passé dafa gaañu woon ci dox bi ak ci ak ci mag bi donc euh, fi mu nekk ñaari fan yi mu toog jël ay soins ñu koy faj fii baaxoon na ci moom parce que tey reprendre na tey reprendre na entraînement yi te def naa ni bon prochain match bi daal moom dina mën a participer ci prochain match waaw fi mu nekk joueurs yëpp ils sont ok c'est-à-dire joueurs yi fi mu nekk daal yaakaar nañ ne ñoom ñëpp dinañ mën a jouer prochain match. mi ngi noonu prochain match bi nag euh, moo di ëllëg diggante euh, Sénégal ak Namibie ak itam euh, ba ñu nar a amal maanaam fukki fan ak ñaar ba tey ci weer wi foofule ca Johannesburg di capitale bu Afrique du Sud foofu nag la waa Namibie di dal dalal Sénégal ci di jëm ci quatrième journée di di qualification mondiale Qatar 2022, mille fàttali nag Sénégal moom groupe bi nga xam te moom la daal di nekk moom moo fa daal di jiite am lu tolloog juróom-benn poñ ci juróom maanaam ci ñetti match match ñaari match yi nga xamanteni mom la jot football manam deux matchs de victoire japp len nak benen match bu ñeel groupe Sénégal euh, diggante Togo ak Congo lay euh, daldi di doon ci vendredi bi di ñuy wéyal euh, match yi nga xamanteni ñoo jëm ba tay ci qualification yooyu 3 troisième journée. Wa jamono gi ma wax ak yeen door na ci diggante Malawi ak Côte d'Ivoire bu loolu weesoo 16h dina am itam yenen jogante diggante ki nga xamanteni modi di Cameroun ak ñi di wa Mozambique. Mozambique geneen jongante yi itam dañ ko daal di amal ci bu 19 heures jotee diggante Algérie ak Niger Burkina Faso moom dana amal déplacement euh, ci euh, Djibouti ci Europe ñoom itam ya ngay daal di amal seen jongante ñel ba tey lii di qualification Coupe du Monde euh, Qatar 2022 18h45 tey jii ci ngoon Allemagne dana tas ak ñi Roumanie Pays de Galles moom dana fekki République tchèque ci dëkkam Estonie ak Biélorussie dañ daal di tase Croatie moom dana fekk Chypre ci dëkkam Malte ak Slovénie dañ daal di tase noonu itam 18h45 diggante Turquie ak Norvège Gibraltar dana tase ak ñi Monténégro Pays-Bas moom dana fekk Lettonie ca dëkkam Liechtenstein moom diggam ak Macédoine du Nord les daal Islande ak Arménie Slovaquie moom dana fekk waa Russie euh, seen dëkk Barthélemy Ngom ñu jeexalee wàllum cyclisme maanaam ñiy dawal wàllu waaw euh, tour cycliste bu Sénégal moom nag euh, dañu ko fas yéene amal gannaaw ba ñu weesoo lii di élection yi nga xam ne moom dëgmal fii nii ci réew mi di janvier 2022 loolu nag kaka wax moo directeur bu tour bu Sénégal doon itam président fédération sénégalaise bu cyclisme moom nag Michel Thioub di naqarlu loolu comportement notamment yenn ci ay Sénégal yi nga xamante dafa mel ni daal euh, bëgg ñu daal vélo di daw ci réew mi ndax lépp li nga xamante daanaka sumb na ko euh, da ciy faral di am ay jafe-jafe ndax ñàkk ko taxaw ba pare rax ci dolli di ci wax ay wax yi nga xamante ni tegginewul ñu déglu ko moom Michel Diouf. Michel Diouf tool dafa dëgër xam nga ñun suñu dëkk boo gisee yenn tuur yëpp di fonctionné muy touru Burkina muy touru Mali dëkk ñu wër yëpp ñu ngi progressé bu mu des ñun sekk ñoom du am soutien te ñun amuñu benn soutien affaire yi dafa métti ñu nekk ci fële ci mbooy gi nekk fi di critiquer di sànni ay xeer rek ñoo nekk ci dëkk bi loolu tax dara doxul ku jóg ñu saaga la ku kii ñu dem te ñoom amuñu dara lu ñuy proposé amuñu dara lu ñuy teg ci table ji loolu nag dafa war a sotti dafa war a jógee Sénégal quoi mbébétu rek lañ fi nekkee dëkk yëpp ngi progressé en tout cas en matière de cyclisme affaire yi métti na waaw ñun suñu fédération lépp ñoo ko jël en charge tout tour du Sénégal bu ñuy critiquer naan waaw waa ji président fédération de moom tour du Sénégal rek la fi nekkal heureusement que tour du Sénégal am parce que tour du Sénégal ba amuloon fédération des detteelu waaw Bomti sport bu fi nekkoon fédération day detteelu course yi ngeen doon gis fi yëpp ñu organiser ak affaire yooyu tout Bomti sport ak tour du Sénégal daf ci dugaloon loxoom donc il faut mbir mi ñu seetaat ko dëkk bi war nañu nekk benn nit ñi commencé di job di liggéey loolu rek moo fi am solo fi mu toll ñun nag ñu ngi ñaan yàlla bu fekkee par exemple am nañu moyens Inshallah, incha allah am nañu xam ne nag ñu ngi fi ñu ngi ñuy ci duñu wax ok dëgg mënta rombi nopp moom la wax. Mhm. waa kay mu ngi non Michel Thioub mom modi njitu euh, njiitu fédération sénégalaise de cyclisme don itam organisateur principal bu tour cycliste bu Sénégal. Cheikh Tidiane Diagne ñu ngi lay gërëm. RFM nit yi yéen kaay NCA Assurance, Savon de Marseille Alphée, Kenkeiri, AAD, Abdou Alima Diop, Deodran, Malaysia UMO, ak seen marque téléphone yu bees di Mion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 immigration clandestine ñiy mbëkk gaali looco yi ngir dem bitim réew riggalaguñu yëral xët mu njëkku libération ci diirub ñeenti fan wàllu nañu ca Kafountine téeméeri doomi aadama ak juróom-ñaar fukk ak juróom maanaam nit yoo xam ne ñoom ñëpp li ñu bëggoon moo di jël gaali yi dem bitim réew ñenn ci ñoom ñoo ngi fekk baax fii ci Sénégal am na ci ñu jugee ca Gambie am ñu jugee ca Gànnaar am ci ñoo xam ne ca réewum Guinée Bissau fa la ñu jugee ki gën a nekk xale ci ñoom fukkeet ne leen ci boo xam ne bañ leen di sauver ak di leen xitili fa la ko fekk mi ngi wax ci journal Libération ne gaa ñooñe bu ñu ndax amatuñu woon lu ñu lekk lu ñu naan waxi nopp ku ci maroon ci ñoom sax ci ndoxum géej gi ngay sëgg di naan di sombi di naan ba noppi dëkke ko bu ñu moytul danañ ca yegg ci réew mi yëral xët mu njëkk Sud Quotidien ab taxaw seetlu la yéenekaay bi xëyee ci dund gu seer gi salaire yu bon yi ñi ñàkk seenub liggéey ak mettiwaayu jamono ji di conjoncture internationale li mu ci gis moo di ci kër yu gasax ca lañ toll journal bi taataan ci xalaat xalaatu économiste ñu koy leeralal fa ñu jàpp ne fa la war a jaar ngir xittali askan wi enquête dina mel ne ku naan ñu askanu Sénégal ak seenu nekkin di social bi ñi jiite mi bàyyi nañu ko xel bu baax baax ndax ci budget 2022 bi téeméer boo ca jël juróom fukkee mu di yi ci social bi lañ ko fas yéene dugal mu di ci wàllu wér géram gi di ci wàllu njàng mi di ci wàllu mbay mi ak ci xëyum ndaw ñi yéene bi xamal ñu ne natt nañu fukki des ministres ba xamal ñu ne ci programme social yeeg ci développement communautaire yi la ñu a def priorité maanaam fa la ñu fas yéene bëgg a jëmbat yitte ji yitte Abdoulaye Diouf Sarr moo di maire bu Ndakaaru journal l'info nañu ci lay dox ak di ci wax firndeli moo di démb moom Abdoulaye Diouf Sarr de la santé ak sociale doon it sa bu Yoff def na ab visite ca Penc Ngaraaf Chamsidine Diagne mi xalifa général bu Penc Ngaraaf moo ko teeru dalal ko ko ñaanal ko ba wax bu ragal dara ñoo ngi ci na yelwaanu Bamba Fall carrément ba mu fa demee démb boole ceekit penc ngaraaf ci Medina Abdoulaye Diouf Sarr la ñu àndal ci local yi 2022 yi Le Quotidien ñu kii di Amadou Ba moom it mi ngi ci waaru yi def na démb ab visite de proximité ca Ponti ca Sandaga ak ca Ñaay Cokkeer Vox Populi nañu defante bi door na ci diggante Amadou Ba ak Abdoulaye Diouf Sarr ne ñoom ñaari kàngami APR yi ku ci nekk ci ñoom mi ngi wane boppam ci terrain bi ministre affaires étrangères ba woon di Amadou Ba ma nga woon ca Sandaga ngir doon natt code de popularité di Diouf Sarr moom ma nga woon ca Medina ba demee ay waxam seddul yoon ŋàññi na fa bu baax a baax liggéeyub équipe municipale bu Médina bi ware fonde ga ca Fuuta la Sénégal nee nañu askano fa nekk jibisi lañu tànn taamu ko ngir mu jiite seen mairie ba moom jibisi di responsable politique APR doon it inspecteur des impôts et domaines bu dëkk ca ware fonde las ne nañu waa ware fonde nee nañu budul moom du doon keneen jibisi mooy seen candidat ci élection locale mooy ki leen doy te ci moom rek la am yaakaar ngir di ñu fa xibaar mbir yu yéeme yu fa takk yu section recherche bu Ndakaar ñoo fa jàpp juróomi góor ak ñetti jigéen yu bokk ci mafia bu doon trafiquer drogue bii di hachis ak beneen xeetu drogue bu ñu naan drogue de synthèse. NCA assurance savon de Marseille a Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop déodorant Malaysia moo ak seen marque téléphone yu bees yi di Mion ñoo leen doon may li ci yéenikaay yi. xibaar yi gis-gis. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye mbokki yi jërë ngeen jëf ñu yegsi ci ponk bu mujj ci xibaar yi di gis-gis ak RFM ndajem Afrique France sommet bi tey la tàmbali amul benn chef d'état africain bu ñu ci woo ay ndawi Afrique euh, ñu ci ëpp fare ci société civile bi la Emmanuel Macron di dajal feem bu bees la loolee la ñuy waxtaanee ci euh, gis-gis ngir waxtaanee ko nag euh, ñu ngi ci ligne bi ak magay gay monsieur gay ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay sëriñ bi.

Euh, d'abord si format bi euh, sommet Fran Afrique France bi ni mu euh, gis nañu né chef d'État yi ñoo doon faral di dem bi pa euh, Macron kese la ak société civile bi ay ndaw yu Afrique mo xam ci continent bi lañ jógee wala ci diaspora bi euh, lu ëpp 3000 euh, ay ay jeunes lay waxtanal format bobu noko ko est-ce que yaakaar nga né dal euh, format moy format bi gën. jërëjëf Barthélémy maa ngi nuyu sama xarit bomb bokkal débat bi. -hmm. Euh, effectivement ni ko waxe deug la am na changement bu ci am chef d'État yi dañ leen di toog leen ren man nak dama yakar ni c'est ce qu'on appelle une stratégie du contournement moy mhm. maanaam jëm leen a wër nomba ngir bañ ñu ñëw bokk ci euh, manam sama yu mel noonu xam nga loolu France da ko yàgg mébét da ngay fàttaliku ni euh, chef d'État français yi yu ci gën a bari suñ daan ñëw mhm fii lañ daan ñëw Dakar ubbee seen relation avec l'Afrique mhm. euh, Sarkozy def na Hollande def na ko gis nga Macron bi mu ñëwee ren wàlla dugale dem mhm. ñaareel bi modi, xam nga dafa amoon ben rapport bu am solo bu feñon te ni ko joxoon di wa Quai d'Orsay muy ministère des affaires étrangères -hmm. en plein Covid bañ ko defee

bu fàtte ne en matière de de j'allais dire de part de marché li muy gagné ci wàllu koom. Mhm. vingt vingt dernières années ñaar fukki at at yu mujj yi seetlu nañ ni euh, weesu na fukk ak ñaar ba dem ci juróom-ñaar. Mhm. yeneen yi mooy gis nga ni de plus en plus état yi ñu ngi tourné wu vers la Russie une pré euh, donc benn société russe bu leen di assurer seen sécurité seen sécurité. Mhm leneen li mooy euh, xam nga ni ñu bari ñu ngi bëgg a dem Commonwealth gis nga Gabon bërgwe bërki dem muy réew yi euh, rak làkk anglais hmm. alors leneen li mooy également xam nga ni élite yu bare bare bare bare bari fi ñu toll d'accord ñu te ni France yi demee ci euh, ci suñu réew yi hmm. yooyu yëpp nag tax nag ba président Macron ni kon nag léegi man ni may def mooy damay dem ci société civile directement waaye gis nga loolu doon na lu graaw a graaw a graaw parce que un chef d'État élu hmm. population yi élire ko mënuloo ko contourner mbor ko ndomba di dem ci ña nga xamni mom mo leen yëlif di waxtaan ak ñom mhm. man c'est inamical c'est irrespectueux te loolu waruñu ko bàyyi mu jàll té dama yaakaar société civile aussi ni ma leen xamee. Mhm. ñu nangu loolu parce que c'est divisé pour régner. C'est mhm. jamono ji kon daan kon daan yow bo ni ni format bi mu ni mu démé ni bu benen yonaté bu ñu bëggé def Afrique France bu wolo chef d'État africain yi dañoo wara bañ. pour man d'abord xam j'ai toujours soutenu dans mes écrits ci samay bind ni d'accord ma ci le sommet Afrique France mhm. pour une raison très simple am réew mënta taseeg ab continent mhm. loolu baaxul ci ce qu'on appelle le symbole gis nga d'accord na Europe fait ak Afrique d'accord na États-Unis fait ak Afrique mhm. mais France fait avec Afrique parce que dafa bëgg a ni rek c'est un pays qui compte alors que yow xam nga ni France fi ñu tour tur war a ko fa les déficit budgétaire de plus de 2000 milliards d'euros mhm. problème de croissance problème de confiance gis nga les gilets jaunes mhm. donc man loolu moo tax man ma japp ni mhm. société civile wërtam nangu loolu nga xam ni fa lañ leen di woo tey D'accord. dina euh, dinaa dellu ci yow léegi euh, monsieur Gay. docteur euh, monsieur Gay, mo ngi ngi koy wax andul ci format bi numu numu ko defee mais est ce que quelque part aussi le président français ne s'est pas dit que peut être bu dajé chef d'État africain yi li bëgg xam réellement ci jafé jafé africain yi du ko xam motax mu contourner leen dem ci société civile bi. Euh, professeur euh, docteur euh, Mor Gassama dafa dem kon monsieur Gaye ñu dellu si ci est-ce que également je vous pose la même question est-ce que Macron ne s'est pas rendu compte que pour mu xam dëggantaan jafe-jafe africain yi il faut mu waxtaan ak société civile mais d'abord jafe-jafe africain yooyu Macron bokk na ci li Le andi président France la France bokk na ci andi jafe-jafe africain yi man mën naa la ci jox quelques exemples rek barki démb Tchad dégg nga le président Idriss Déby waxoon démb bi muy dund ne woon na man yàgg naa bëgg a dem parce que mandat may mayatuma ma toog mais France ñoom ni na nga toog loolu waxoon na ko euh, dans un grand média européen te France démentiruñu ko mhm. bërki démb ba nga xamee ni succession am na fa gis nga ne ca France dugalay loxe yàq yàq affaire bi ba doomam lañ fa teg mhm. ñetteel bi mooy gis nga la le problème de l'éco bii nga dégg éco CEDEAO muy monnaie bii nga xam ne ñëpp xam nañ ni monnaie CEDEAO moo ko tëggoon mhm. mais gis nga France nan ñëwee ba gal ko dugg ci jaxase affaire yi bafintool africain ñu ngi commencé divisé wu. d' dina dinaa ñëw si yow léegi euh, docteur euh, docteur Gassama yexina euh, docteur forme bi ñu amalee sommet Afrique France bi sans les chefs d'État, est ce que quelque part aussi mënuñu ko comprendre est ce que Macron ne s'est pas rendu compte que pour mu xam dëggantaan jafe-jafe askan wi faw mu jaar ci société civile bi. waaw jërëjëf. loolu en tout cas formule moom ah, changé na ko loolu lu leer la parce que foo xamante ni.

day jëm a xool léegi dem lu mu ko gën a mën a defaree. parce que mhm. gis na ne ak ñooñu bu leen tane d' nañu ak ñooñu rek daanaka parce que ci kaw moom musul pose problème. Mhm. problème léegi moo ci suuf. voilà coow li fi am yëpp ci mbirum CFA beeg euh, yeneen a yeneen ba tax na ne gis na ne vraiment gis nañ sax par président Macron defoon fa ay ay sorties comme quoi voilà léegi nit ñi bëgg France ni dafa am yoo xam ne dañuy wax pour indi ay haine contre la France et cetera alors que demee wut noonu ndax relation yi France daan am seen pays africain yi.

ah ci logique boobu la nekk mais gaw ma ne dina ko mën a atteindre objectif boobu <laughs> parce que dèjà nit ñi moom mbir yi leer na bu baax a baax bu njëkk ba wax ak nit ñi gawoon na yomb mais comme continent bi léegi nit gën nañoo yeew gone gën nañoo jàng ah, démocratie aussi yokk na tuuti. Hmm. maanaam léegi ñu ci bari fuñ toll dañuy wax li ñu xalaat waaw ah, te bu dante bu njëkk ba xëy na yenn bu daan li sa xalaat bokkut ak méngoot ak xalaatu ñu jiite réew mi do am possibilité wax ko parce que xëy na benn média moo doon am ay média de taala leen neex rek leen jàlle léegi loolu amut mhm. média yi démocratie nañ ko réseaux sociaux am na donc ça veut dire que euh, liberté d'expression bi y a des canaux yoo xamante ne peut-être mën nañ ci wax mais mais mais économiquement parlant lu ñu mën a xaar ci euh, ci sommet boobu euh, ñeel ay retombées ak yeneen yu ko demee Euh, parce que li mu bëgg rek France mooy ne xëy jéem amaat ay marché moom lépp lu mu def lu mu la wax loolu intéressé wu ko. Mhm. waaw loolu kese la parce que réew moom buy yëngatu ay intérêt lay défendre défendre intérêt lay si wut yu mag la yor pour entreprise yi nga nekk en sécurité gën a ay marché ñu gën a am xaalis bu bëri bu ñu seen dëkk. Mhm. seen réew. loolu mooy leen intéressé fuñ mënta jaar nag ak luñ ko mënta tuddee foofu lañ ci jam gis nañ sax mois de mai bu passé gis nga pour affaire financement des économies africaines euh, sommet bu Fran euh, euh, convoqué woon foofu noonu Macron à Paris mhm. te ñu xam ne le principal créancier des pays africains du du du France du États-Unis mais Chine la ah lu ah, mu ci jublu woon aussi mooy ne pour def bu ñuy def rek pour pays africain gën a am ay moyens ba Macron moom sax dina nekk porte parole pays africain yi pour DTS yi ñu gën leen ca jox et cetera et cetera. Mhm. yooyu yëpp pour toujours nit ñi gën a am bon sympathie envers la France ah, mais je pense que jamono day dox daan jamono jamono day jox

Le hmm. sommet c'est entre les chefs d'État, les chefs de gouvernement. Hmm. Les droits Afrique nous nga sommet. c'est à la limite d'un colloque à la limite ay journée économique D'abord, def il faut ñu changer loolu. Hmm. ñaareel bi mooy man dama ni du lenn pour plusieurs raisons. D'abord, la France n'a pas posé le bon diagnostic maanaam diagnostic bu baax bi nga quelle est sa responsabilité historique ci li xew li nga xam ne moom la tudd illégitimité des états maanaam état yi euh, daanaka euh, représenté tuñu population yi moom war na xam lan la ci def. Mhm. la clé n'est pas de contourner les chefs d'état clé bi xam nga lan la mooy. Mhm. fexe ba nu mu andee chefs d'état yi ñu gën a respecter constitution yi. Mhm. nan la mën a def pour que également lii ñu ko xam lu lu yàq lu bon lu ne ñu gis ko derrière loolu mu bàyyi ko deuxièmement mais la France war modèle modèle économique. Mhm. xoolal tey baax anglophone. te xam ni les 20 pays les plus riches du monde ñaar francophone modèle économique boobu et enfin attention il faut ñu def attention chef religieux yi ca la dañ ko bindil mu leer dans le mm-hmm. rapport bi wala la doon wax léegi mm-hmm. mais kooku c'est grave parce que ñun chefs religieux yi ñoom lañ am ci ñoo xam ne ñoom ñooy suñu wéeruwaay léegi mm-hmm. suñ demee ba jaar fa fragiliser leen te France képp ko ànd yow ñu fragiliser la léegi soo seetee bu baax ci gàmmo yi ci màggal yi ci dans toutes les euh, cérémonies ñan ñooy dem ambassadeur bi dong dematul xam nga ñan ñooy dem léegi militaires yi danañ dem ñeneen ak ñeneen danañ dem parce que li ñu bëgg mooy fragiliser li nga xam ni moom dong la ñu actuellement comme une force mooy la force religieuse mhm. te bis buñ billaahi bis buñ ko fragiliser nañu leer ni Afrique dana gën a am problème parce que fi ñu toll loolu dong fi ñu toll mooy suñu sac ci réew mi mhm. ak ci Afrique d'accord d'accord jërëjëf euh, Magaye Gaye économiste international docteur euh, docteur Gassama ma jeex ma jeexal ak euh, yow est-ce que yow même crainte yi même crainte yi nga am au regard de ce qui se passe bien sûr. Euh, waaw en tout cas euh, li ñu mën a ja jàpp daal ci mbir mhm. euh, ne France mom, dans ci gàttal nam position ba l'Afrique ci Afrique. Mhm. ak ba dans ni ñu de xoolee loolu la bëgg ba mhm. alors que béy wéy na mbuus. ok coopération. Euh, sur le plan économique dafa xaw a descendre tuuti te ba ñu mën gën a diversifier les partenaires gis nañ ne ñooñu ñooñu ëppan njariñ mhm. tey boo doon jël rek exemple coopération américaine nga xool fu mel ni USAID wala nga xool surtout MCI bi nga xam ne vraiment mooy Millennium Challenge Account bi. Mhm. am nga xam ne gouvernement américain ci seen trésor danay dégager benn ligne budgétaire jox la ci ay ay de milliards ne la la waxul la nga delloo ñu leen ren lañ bëgg nga xool benn projet boo xamante bi amal na njëriñ askan bi ñun ñu financé ko. Mm-hmm. xam nga ne loolu macha allah ku la ko mën defal mën ko tegle ki nga xamante bi day ñëw di jël seeru studio yóbbu. Mm-hmm. parce que ko dund. exemple bi xam ne dafa ma frappé benn jour bi ma koy liir daanaka da dama mel ni kuy kuy miir parce que mënoo lii nan la mën a nekkee. bi Pascal Lissouba ancien président bu Congo bi mu doon wax ne seen pétrole bi que euh, elf donc kii don euh, don doon doon doon doon foofu. Mm-hmm. benn possibilité. pour vérifier li Elton lu Elf doon doon doon tiré ci sol ci su seen ci su sol. Hmm. ñaar ban quantité la amoon ko ci ñam ci li leen déclaré rek ci lañ mën a yem. am nañ toog nañ jamono joo xam ne euh, ni ñi wax na ne lañ doon déclaré ak li amoon wute na. Hmm. dem ba ci biir comme tubaab moom ñu si ëpp dañoo war a le euh, boo ànd ak ñoom loo ref tôt ou tard koy génne. ña fa doon liggéey ca biwaar ba bañ fa génne bi seen journaliste euh, journaliste yi def ci enquête ñoom seen bopp ñoo ne effectivement. lan doon déclaré ak la doon lan doon génne da daan wute biñ demee sax ba estimer affaire bi ñoom ne daan naka loolu boo ko estimer dana war a jege quatre cent euh, milliards de francs yoo xamante bi mooy liñ liñ liñ liñ jalgati foofu. Hmm. ex ex xam nga yooyu population ñu koy dégg seen xol du neex. waaw ah, da ngay mel ni ba léegi rek daanaka buum ak jaam gi euh, euh, waa ji da koo dog nii rek mais ci ci ci ci gis-gis mais ci jëf yi. def na hmm. ba. D'accord. loolu moom moom révolution population mentalité faut D'accord. d' euh, docteur Gassama euh, ñu ngi lay enseignant chercheur ci université D'accord. bu gërëm euh, économiste international gërëm nañu leen sant leen